ci ay simili néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info ngeen ci ànd ak Ouzin dañu koy ubbeek fële ca capitale du rail ñu naan ko Thiès angle Serigne Fallou hôpital régional jëm fi nga xamante ni moom mooy centre ville ba ba ci pharmacie du rail foofu nag sécurité bu doy waar la ñu fa teg li ko waral xam ngeen ni Serigne Moustapha Sy ak Serigne Maodo si dañu fay layoo benn suuf si nga xamante ni dañ koy xëccoo terrain ku nekk naan maa moom tey mbir ma terrain ji fi nga xamante ni moom mooy tribunal bu Thiès waaye tribunal ba nag dafa ordonné une expertise maanaam ab kayit buy wane nii bu war a def benn rapport rapport ba nag dina war a génn ci 60 jours lañ leen may comme délai ñu dem xooli càmbaar suuf su ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi naan yaa moom ak ah, kan ah, moo ko ci moom dëgg-dëgg waaye maître Sonko di avocat seriñ Moustapha si moom moo joxe xibaar boobu moom mi nga xamante ni moom mooy layool Serigne Moustapha Sy avocat Serigne Maodo Sy bi nag di maître Mbamba Cissé moom yëyul yàbbi ci mbir bi ndax nee nañ dañuy xaar ba ah, li nga xamante ni moom mooy rapport bi daal di génn dinañ ko topp également. ma xool foofu wànneen naka lay mujjee ak i gëtam bu ñu fa jigee dañuy dem fi nga xamante ni moom mooy banlieue bu ndakaaru xam ngeen ni nag euh, inondation yi euh, dafay lëmbee fan yi yëpp ñu passé ndox ma sonal leen mu ñoo dem mu mënuñoo dikki jur mer ci euh, commune bi nga xamante ni moom mooy Diamaguène Sicap Mbao koñ ba di tudd Alassane Dia sapeur pompier yi ba ñu jëlee ndox ma naa ni dañu koy yóbbu feneen ñoom waa koñ ba tamit ni duñu ko jaarale fii seen diggante benn mbër boo xamante ni jotuñoo wax turam daal di songo sapeur bu dóor ko dóor yu méttee métti ba mu ko dóoree nag sapeur yi daal di dem indi renfort pour jàmmaarlu xale ya waaja defoon jëf jooju dafa mujj daw. bu ñu fa jugee dañuy dem ci ki nga xamante ne mooy Babacar Justin Ndiaye di analyse politique yéy yàbbi ci mbiri Ousmane Sonko bi nga xamante ni dafay ànd ak nga xamante ni moom mooy euh, Karim Wade ak nga xamante ni moom mooy xalifa sàll ba ñenn ñi nit jàpp ni sax du yoon ndax système bi la doon xeex te ñooñu ci système bi la ñu bokk moom analyste bi xalaatam mooy loolu war na mën a nekk te dafay nekk li nga xamante ni moom mooy arranger Ousmane Sonko ak fii politique bu toll foog ñoom ñu daal di am mbooloo ndax nee na bu demelee moom kase dina jafe ci moom ci ci élection locale yi ba sax nee na loolu wutewul dara ak système bi nga xamante ni ah, daf koy revendiquer nii da koy xeex dañu koy daaneele ak ki nga xamante ni moom mooy mbiri Dieyna Baldé enquête ba bés bu nekk saa su ne muy génnee ay mbir yu bees Dieyna Baldé vidéo ya nga xamante ni moom mii mag ji daal di ko doon sant mu santage ki nga xamante ni moom mooy Bril Fight Fo ba mu mujjee teere ah, tribunal bi nga xamante ni ñoom ñooy ah, Euh, yëngu ci wàllu cyber criminalité waaye ki nga xamante ni euh, mooy enquête ba la mu mujjee wax mooy Dieyna Baldé yor na vidéo boo xamante ni euh, ki nga xamante ni moom mooy Marichou def ci feeñ ak Bril faaj Fo te nañ ci feeñee doy na waar waaye nag ci xibaar téléphone ba dañu ko sànni fi nga xamante ni moom mooy canal bu Ngor loolu mooy li ñu leen indiloon ci nga xamante ni moom mooy les minutes de l'info ngeen ci doon ànd ak Ouzin wéy leen di abonné seen site dara du leen rëcc ci réew